bataille police yi à Dunabi bi ñu dippee Interpol teg nañu loxo benn ndaw Sénégal bu tolloo ci ñeen fukki at ak ñaar fële ci Brésil ñu ngi koy toppee trafic d'êtres humains blanchiment d'argent fraude documentaire maanaam dafa doon jëlee ay nit Sénégal yóbbu Brésil ginnaaw bu mu leen defalee ay kayit yu jaarul yoon laata ñu fay àgg nag ci roplaan na leen doon dugal jaarale leen fi nga xamante ne moom mooy Bolivie ba pare suñu tak der yi ñu ngi ko doon topp 2020 ba tey ay jàmmaarloo yu méttee metti ñoo am tey ci talaata gi fële ci Kolda ci diggante ASP yi ak euh, tak der yi ba sax kenn ci ASP yi dafa mujjee ñàkk loxoom na grenade lacrymogène moo ci explosé yenn cna naataangoom dañu leen teg loxo ASP yi lu ñuy kaas mooy ñu jox leen ay payor ak euh, retraite yu baax préfet bi yilif diwaan wi tere woon na sax euh, dox ñaxtu boobe waaye ñoom dañoo ne dañuy dem ba jeex euh, ci seen xeex boobu sax ñii di waa FRAPP bu Guy Marius Sagna lañu ñu si àndal ak euh, waa mouvement bi division citoyen ñu dëkk foofu ci Cambérène tey nag tiis la ñu yendoo dara waralu ko lu dul néew bu ñu fekk ci benn ndaamaar tey euh, ci altine gi ay 11 ci suba li jot ci ay xibaar mooy ku góor la ñu ngi ko fekk ci benn Toyota Yaris te dañu ko faat. jamono ji ñëpp a ngi laajte Bamba Fall lu muy wax waa koñ ba ginnaaw ñu bëri ci askanu Médina bu ñu ko sànnilee xob ci local yi ñu génn lépp ngir bañ a fal maire bu ànd ak nguur gi ba tax na ñoom dañoo dummoo woon kii di Cheikh Ahmed Tidiane Ba démb ci guddi la maire Médina bi di Bamba Fall waxal boppam ni Macky Sall fal na ko ministre conseiller mu teg si ni waa Médina ñoo ko ñor moo tax mu doxalee lu ni mel keneen keneen ku war a jaaxle moom itam ci mbir mi du kenn ku dul Bougane Gueye Dany ginnaaw bu coalition gëm sa bopp jàppale kii di Bamba Fall ñu doxantuwaat fi nga xam ni mooy Casamance nu ñu leen ko détalee woon démb ci altine gi le Salif Sadio jébbal waa CEDEAO juróom-ñaari soldaaru Sénégal yu mu téye woon boobu ba tey waaye lu leerul uh, ci bopp yi uh, mooy bu ñuy dem démb uh, delloowu leen gànnaay yu mu jëloon ci ñoom lu ci mel ni fusil gilet pare-balle ak seeni casque bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xamante ne mooy Robert Sagna kenn ci les rebelle yi ci diffusion de données à caractère personnel maanaam siiwal ay e nataal wala lu ni mel loo moomul tribunalu ndakaaru daan na démb juróomi doomi aadama ñaari atu kaso yu ñu dul tëdd ginnaaw bi ñu tasaaree vidéo soxna suy wuyoo si turu Betty Aïcha di ko laaj xaalis si biir vidéo bi ñu ci gis awra kii di Betty Aïcha ndaw si dafa juum dugal vidéo bi ci story Snapchat ginnaaw bu mu filmé boppam ngir yónnee ko ku muy bëggante Euh, ba tax nag suturaam xaaweeku euh, ci koñ bi mu dëkk di cité Fadia fii ci Dakar fële nag ci département Guédiawaay tong-tong booru géej gi ci filao yi mu ngi wéy waa Libération nee nañu lu tolloog ñetti téeméeri conseillers municipaux ak ñaar fukk euh, jot nañu seen wàll ci nag bi ñoom ñëpp nag bu ñu leen di folli ci élection locale yi ñu génn ku si nekk danga bokk sa pàkk yóbbaale yenn si ay imam imba ak i délégué euh, ñoom itam kenn fàttewu leen ci séddale bi ba tey yëglekaay bi nee na itam syndicat waa impôt et domaine ñoom daanaka ñoo jël li gën a duuf ci nag bi ndax teg nañu loxo ci 4 hectares ginnaaw booy tiis tegloowee ci ndoddo ki nga xam ne mooy ma jigéen Diagne Ndeye Saly job Dieng jëwriñ bu ñu dénk wàllum jigéen ñi nee na da ko fas yéene jàppale balaa muy tàggalikook sagoom kii di Madjiguène Diagne nag ginnaaw bu mu ñàkkee ñaari waajuram ci diiru ñaari weer daf si teg ñàkk boroom këram weeru janvier bi ñu ne déetawaay ñetti bant yu mu jotoon a am ñoom itam wuyu ji nañu seen boroom ci ab lakk 10 bi ñu génn fële ci Popenguine làkkin séeréer mu doon ay nakaru xol yu bëri yu mu boole ba tax na Ndeye Saly Diop Dieng nee na da koy indi fii uh, ci Ndakaaru ngir mu gis uh, ay docteur yu yëngu ci wàllum xel yu muy waxtaanal uh, bu paree ci loolu nag dinañu ko defal formation ngir mën ko jox financement mu daani dooleem soxna Ndeye Mbacke ginnaaw bi mu tàggoo ak maître Madické Niang dugaat na ci bu mu sëy dafa génn ci ancien ministre dalaat ci ministre keroog ci dibeer gi ci la ministre conseiller bi di Arona Coumba Ndoffène Diouf def farata def ko ñetteelam soxna sii di Maguette Seck ñëpp di ko woowee Sané Madior démb dañoo biraloon ni borom këram da ko fase ndax interview bi mu defoon moom nag ak borom këram génn nañu nee nañu loolu dara amu ci kii di Mamadou Niang nee na fase ko benn yoon dafa waxoon rek na soxnaam dem kër baayam dallu ji ndax coow li bëri woon na loolu nee na sax wax boobu lu ko metti la ndax soxnaam si doomu baayam la moo tax lu ñaaw xajul seen diggante Euh, beneen xibaar bu Maguette Seck euh, biral euh, mooy koñam foofu ci géejawaay apprenti car yi dañu ko mujj def are tuddee ko Sané Madio jamono ji nag kii di Maguette Seck ak jëkkëram ñu ngi wër kër yëglekaay yi ngir waxaale seeni soxla nee nañu dañoo bëgg ñu jàppale leen taxawu leen soxna si ci jaay jën lay yëngatu mu nekk liggéey bu metti mu fay jàkkonteel ay coono yu tar ba tax na biiram jot na si woon tuuru ndax yan bu diis bi li gëna fess uh, ci tagat yaram ci biir staffu suñu gene yu ci basketball uh, da ci am kenn ku ci ndombo record nee Doken Kudul uh, kenn ku manager général bi Mom mi fi champion d'Afrique 1997 jubootul won ak ki di Boniface Ndong entraîneur ou équipe nationale de basket bi wa fédération bi jëm nañu ci dox e jéego waaye antoul du ci dal yoon mu nek lu doy ndaxte équipe baa wadjal fand ñel élimination mondiale 2023 bi liko dalé 25 27 février bi ñu pàkk yi nguur gi jagleel suñu gaynde yi ginnaaw bu ñu jëlee coupe d'Afrique des nations source a nee na suuf yu leen président Macky Sall may ñu ngi diggante Ngor ak Wakam ci wetu ex aéroport Léopold Sédar Senghor ci bërëb boobu sax la nguur gi dagaloon waa cité Tobago ginnaaw bu ñu tojee woon seeni kër. ci tàggat yaram ba tey njabootu Abdoulaye Thiam mi ñu gën a xam ci turu douzième gaynde nee nañ bëgg gi jox dem si yàlla seen waajur bu góor lu mu yellool ginnaaw bi mu jàppalee équipe nationale u Sénégal ba keroog nu muy sàngoo suuf taawam bu góor bi di Moustapha Thiam nee na ci biir l'observateur ni dafa bëgg ñu yóbbu Coupe d'Afrique des Nations di Sénégal jël ba si xabru baayam ngir delloo ko njukkal yokk na si itam ne lu koy gënal mooy ndaamaar ak welo yi mu daan war ñu yóbbu leen patrimoine national di bërëb bu ñuy denc lépp luy fàttalil doomu Sénégal yi seen cosaan ak lu ñu moom góolu Sénégal bi di Edouard Mendy moom bokk na léegi ci doomu Afrique yu boole ñetti raaya yi di Coupe d'Afrique des Nations ak Coupe du Monde des clubs ak itam Ligue des Champions fekk si na tey jii beneen doomu Sénégal bi di Sadio Mané Ivoirien bi di Yaya Touré ak Camerounais bi di Samuel eto